خيار العالم الممد الأمين يونين يونا خيار العالم الممد الأمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ñu sell sell sell. leen xamal ne jaajëf rekk moo war a sama dikkante ak waa Mbuur jaajëf rek moo war sama dikkante ak région jërëjëf rek moo war Sénégal région yëpp nag lool lool lool président de la république taxawaayam yaatu na dëkk ni ci soxla defal nañu ko dugg nañ ci lël bi jàmm génn ki jàmm loolu nag boo gisee ñu tal ko sécurité yaa tax bu dee lu ñuy def sako rekk lañu am sécurité amu ki ah xaw de jël yàlla xam doy na tax na naka ñu ngi nuyu ñu préfet bi fi nekk ñu commissaire bi fi nekk suñu commandant brigade bi fi nekk mhm. service d'hygiène bi fi nekk mhm. ak service yëpp fi nekk mhm. bay ñu ma benn waxtu ñu ngi toppatoo toppatoo bu sell sell sell sell guddi ak bëccëg yëpp la ñu yemale kon taxana suñu xol sedd waa télévision seen weer wi TV weer TV weer wi weer wi TV waa télévision weer wi TV ñoo fi agsi léegi ñu soxla suñu baat ñu jokk waa mbuur waa àdduna yëpp di ko déglu d'accord nañu <laughs> suñu xol sedd nekk da ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp hmm, kooku mooy dëgg kooku ñëpp nañu ñu santee suñu borom bu baax a baax a baax kenn hmm, ñëpp la ñu góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn te fàttewuñu kenn te amuñu noonu fenn du góor du jigéen du mag du ndaw waaye alhamdulilah ñu ngi nuyoo waa club Tembale bu baax a baax a baax. suñu kilifa bi nga xam ne kooku mooy alxaaji jàmbang mm-hmm. ñu ngi koy sant di ko gërëm. Mm-hmm. gis nañ taxawaayam bu baax a baax a baax ba ni mu taxawee. Mm-hmm. na ko yàlla fay. amiin yaaba bu bare bare bare yàlla dollee ko kudd fan. amiin muy remplacer. wax dëgg yàlla def nañ ko bu gën a rafet hmm. te moom itam mu bu baax a baax hmm. kon fàttewuñu leen ñu hmm. leen bàyyi xel lool di leen dolli ñaan lool xamee ko noonu ak i jabootam ñi nga xam ne ñoom ñoo ko parti valeur bu des lii di ko alhamdulilah rabbil alamin ñaan rek moo ma war ci ñoom. dëgg la nañ ci yàlla jàppale lépp. lu ñu ci ñaan yal na ko yàlla nangu. amiin waaye nag yéene woon naa fi kulote man ne. am na ci yàlla nangu suñu ñaani. amiin amiin dëgg ci laa bokk. la suñu nee ne. boo bëggee mucc. bul wax sa bopp kese. dëgg la dina kaal bi muccee. dëgg la kaal bi muccee. boobu ba baa ngi ci. jàmm mu ki mm-hmm. wala si baani bu mm-hmm. mu jë rek ñëpp mu jë kon nag fii nga bokk mm-hmm. mooy collecteur Mandé falaa bokk kenn mënu ma fa génn déedéet collecteur Mandé kenn mënu ma ma génn mbuur kenn mënu ma fa génn kon ñu sante ko suñu borom bu baax rawatina nag moom li yàlla xam doy na nañ si yàlla jàppale eh, Leer def ngeen lu rafet. seral nga sama xel bu baax a baax a baax a baax te kontaan naa kontaan boo xamante ne. seen ñaan dama koy dénk à part. bu ma ko yàlla doxalee. yaakaar naa weer TV. weer wi TV. Mm. moo tax ma xaw yeex a tàmbale kaamil bi. est-ce que parce que damaa amul woon courant maa ngi xaar. dëgg la nga léegi courant amul tàngoor bi bu ko maaree. léegi nag dëkk naa ne yaakaar naa yéen laa doon xaar. est-ce que bu ngeen ñëwee incha allah. incha allah ma pare ma door a tëj bunt bi. incha allah ma commencé kaamil bi. incha allah tàngoor lu mu tàng tàng. incha allah ñu jéem ko laal rek. incha allah am nañ ci yàlla yombalal. amiin amiin waaye ngeen xam ne. incha allah bokk naa ci Weer Wii TV. incha allah ngeen xàmmee ko. incha allah ak fu mu mën a toll nag. incha allah sama xel dina nekk ci yéen itam incha allah ngeen bàyyil ma xel. incha loo xam ne yëgit ngeen ko. ngeen agsi rek. incha allah ñu waxtaanee ko. incha allah liñ ci mën. def ko ci rek. waaye ci ci kanam. Mm-hmm. ci kaw ci kanam. ci kaw ci kanam. ci kaw ci kanam. lu baax ci kaw. ci kaw la jëm. lu baax. Mm-hmm. ci kaw la jëm. boo defee safaan bu nag la wàcc ci suuf. waaye lu baax. Mm-hmm. ci kaw la jëm. te incha allah. ci kaw la jëm. ci kanam la jëm. incha allah bu leen ci am benn xalaat. incha allah bàyyiwaam pembe. incha allah nañ ci yàlla taxaw. dëgg la dëgg nañ ci yàlla defal. amiin jërëjëf Seydou Mawir. macha allah lii la ñu amoon. macha allah sànni ki Weer TV. yal nangu suñu ñaani. leen ñaani. mooy ci kaw ci kanam rek la. ci la ñuy incha allah tàmbale nañ ki toogaay bi. te gisuñu fu ñu koy arrivé. tey que ñaan moom. Hmm. man ku ma xasee dugal rek yaa ngi ànd ak man. wallaahi incha allah mosuma fàtte benn doomu aadama. dëgg la ma ne alhamdulilah rabbil alamin lii la ñu amoon. pour teg ko sa loxo. incha allah allahumma salli ala jërëjëf. si sama numéro mu ngi noonu tabaarakallahu ngeen amoon sunu way jur. soppey adduna. Hmm. Moustapha Cissé foo ko tuddee ci àdduna bi ñëpp tabaarakallaahu kontaan ndax taxawaayam mm-hmm. waaye diine ji ko yàlla dénk waaye fulla ak fayda waaye tabaarakallaahu njëriñ gi mu amal nit ñi te yàlla moo ne waaw maaman yan faxul nas fayen ko fi larbi mm-hmm. kon yal yàlla doole guddal fanam ba sina Mohamed Sall jërëjëf papa yal na yàlla doole guddal fanam Weer Wii TV